jaajëf sama gars yi salaam jàmm ku mbéri ni baa ngi ni yow léemaa ko mëj wul dégg ko fay mi booy ji ji ji di teer igéey booy grand mi si takke më ne ne maa ngi leen di bëgg bu baax a baax di leen ziar vous êtes dans votre émission Galsen sama game ci Equivox TV maa ngi leen di ziar bu baax a baax euh, Mojo leen fi dalal Mojo from KL Siri fas ne waxtaan ak moom ji di teer ñu ngi lay char di wax ne ansibilah min cheytaan rajim bismillah inawal yàlla mm-hmm. Mojo la Kadambo Sekel si Rock Team Music donc maa ngi siyaar képp ko xamante ne tey yaa ngi ñuy suivre live and direct ma broda Jilitaire Mojo aka Kadambose. Eh, jaajëf Mojo euh, Mojo dañuy dugg ci biir waxtaan bi mais man lu ma koy bee mooy Mojo bi ma xam nga tuddee sa bopp wala beneen Mojo la. waaw Mojo bi Mojo moom yaakaar naa kenn la mooy Mojo Morgan bu Morgan Heritage. voilà. moom laa tuddee son bopp. Mm-hmm. parce que fi ma jaar ak moom moo tax ma jël ko tuddee ko son bopp. dafa am foo jaar ak moom. effectivement man su ma defee musique c'est par le biais de Morgan Elutez. explique ñu loolu nu mu demee. voilà <coughs> euh, maa ngi démarré suma carrière musicale. Mm-hmm. en solo 2015. 2015 mais avant 2015 man dama doon déglu ku ñu naan euh, Morgan Elutez groupe reggae man reggae laa doon déglu daaw ma suivre rap. Mm-hmm. voilà juddu naa nag ci benn koñ boo xamante ni Californie lañ koy wax Kaolack. amoon benn groupe bu ñu naan ride gi foofu laa intégré woon doon fa comme benn benn chanteur. Mhm. di nekk nekk seen soolkat quoi. Mhm. donc mais Morgan ñoo ma inspiré. Mhm. ci laa ñëw nag toog benn jamono ñu ne Morgan Heritage dañuy ñëw Sénégal. ma dagg suma paas ñëw di leen seetaan si fekk ñu ñibbi. ñu ne eh, concert bi jeex na depuis démb. donc concert bi démb la woon ñuy ñibbi après ci la alaaji man ñëw gaa expliqué ko ne am na benn boy bu nekk fe il de Kaolack. moom gars yi la doon xool si malheureusement concert bi jeex na. mu ne ko gars yaa ngi nii mu ne ma gars yaa ngi nii dem aéroport. ci la Mojo wàccee ak Grams moo gën. après Mojo moo ma lëng xam nga nuyu ma. Mhm. encouragé ma voilà ne ma concert bi nga doon seetaan si mais démb la woon foo dëkk ñu waxtaan le fait que Mojo wàcc ak oyof boobu mu oyof. Mhm. lëng ma. Mhm. image boobu laa jàpp image boobu nekk si man loo ma wax rek mooy la Mojo Mojo Mojo ma dem ba gars yi naan Mojo Mojo noonu laa commencé ba intégré ci hip hop. 2015 nga commencé sa carrière solo wax nga fi nga jaar nem bi fu mu jógee ci Mojo bu nekk Morgan Héritage avant 2015 si crew nga nekkoon. avant 2015 si crew laa newoon crew bi nag dañu def am séparation mais hmm. c'est cause professionnelle la. ok moo ko waral parce que kenn ki am na bac ouz ni bois dem na joobi. Hmm. raison pour laquelle on a préféré ku nekk def sa carrière solo fa nga hmm. nekk. looloo waral ma débuté sama carrière musicale en solo. 2015 mais au début. c' était juste que affaire de amateur la woon. foo jàppee rab bi comme affaire voilà. dëgg la mais biñ demee ba xam ne carrément affaire bi mu ngi si ñun. ñu jël ko sérieux au sérieux donc commencé di ci bosser durement. Mhm. nga commencé sa carrière euh, solo 2015 2015 euh, nga commencé def sa carrière solo mais 2015 bi avant ba avant 2018 wala avant 2017 wala avant ngay jël Citizen Mage lan nga jotoon génne waaw ay single laa doon def. ay single ñetti single laa def presque 2015 laa def ñetti single. Mhm. voilà moom laa gagné bépp trophée boo xamante ne ni Kaolack jamono jooju daan nañ ko teg 2015 16 17. si benn single. waaw ñetti single. ñetti single. waaw presque luy révélation Kaolack gagné naa ko fa mm-hmm. gagné naa fa concours. Mm-hmm. Euh, doon naa nominé bokk naa ci ay ay ay ay projets yu bari yoo xamante ne nii. c'était mm-hmm. avec la GIZ. bokk naa ci ay affaires yoo xamante ne nii yu bari loo xamante ne nii daal single yooyu ñoo ma ko may. mais 2015 boobu noonu ci laa am bac ci laa Dakar. ok bi nga ñëwee Dakar Citizen Mike 2017 2018 côté boobu la mhm. nga bokk ci compétition boobu. naka nga def ban sélectionné la sélection bi naka la demee woon avant nga ciy bokk. waaw dama dem flow dama njëkk a gis flow parce que rêve la woon ci man. Mhm. ma postulé waaw ñu voilà ma quart de finale je mhm. ma jógee foofu concentré waat ci études Citizen Mike tëll ma pourquoi pas. nga inscrire. ma inscrire mais nag ba may jëlewu jëluma ko woon au sérieux quoi. Mm-hmm. parce que dama ne woon ah naa concentré wu ci leneen moo gën concours yu nangam ak nangam. Mm-hmm. mais yàlla bi dara tëwut bi ma inscrire suivre affaire bi xam na lii am na ay bagages ci nekk ma mm-hmm. concentré wu voilà ci laa ko gagné. avant ngay gagné Citizen Mike ci biir compétition bi ñu doon tële gis benn gaan bu yar ay karaw jóge Kaolack di sol ay kii nu mu tuddati ay dara ay dara. loolu lan la dara yooyu amuloon ay affaire yu nga doon dugal ci biir. non non du du loolu sax style boobu lan nga doon prôné loolu. ba léegi style boobu moo fi ne. li may wax sax jour ñoom léegi gisatoon ko ci yow ba jóg. ah parce que li tax dara. waaw li tax euh, li may wax chaque jour rek. Mhm. li may joué concert moom du ma sa wàcc. dara yi moom moom laay joué chaque jours Mhm. peut-être émission wala interview. wala li ngay def tamit clip bi. Mhm. danañ changer tamit parce que mhm. image bi tamit du lu ma neex rek laay def. mais tu es obligé tamit nga def li nga xamante ne te wóor na ne mën na la apporter leneen. tey Mojo ko xam lugam sur seen xam ne day tas karaw gi. ku ko xam-xam ne day takkaayu ba fees. ku ko xam-xam ne daraay la tey def day def show day joxe. donc dafa am image bu ñu am concert ak image bu ñu amut bu dul concert donc looloo indi la track bu ñu naan recto verso. ñaari phase la am na phase boo xamante ne nii bu ñu demee université dañuy ñaan yàlla tey ku ñu xool respecté ñu. dëgg la xam ne carrément c'est un étudiant wala nangam ak nangam. Mm-hmm. Mm-hmm. mais tey li may wane ci concert mënuma ko yóbbu ci université mënuma ko yóbbu ci saal yi mënuma ko yóbbu ci biir kër yi. Mm-hmm. rab bi benn mbubb la bu may sol. ba pare dama koy summi. dëgg la leneen li may def leneen la. ma bañ koo trahir wala ma bañ a trahir leneen wala ma cumuler loo xamante ni mën na indi fayit ci suma carrière quoi. Euh, nga dem jël flow nga dem jël <clears throat> citizen mic mm-hmm. nga bokk nga compétition ab nekkoon bëri ay ndaanaan nga gañe ko depuis boobu ba léegi ñu ngi gis Mojo mi ngi génne ay track encore après loolu génne na projet am si euh, biir compétition bi Mojo gañe na studio om studio ak ñaata million la woon sax. un million un million. ak studio. studio un million. ana studio bi. waaye studio bi sampaguñu ko. sampaguñ ko depuis 2018. Mm. depuis 2017 2017 ba léegi 2017 ba léegi sampaguñ ko. da nga jotagul ci studio bi wala. non jot nañ ci lépp lépp mu ngi fii tëdd. moom laay wax moom laay voilà parce que tamit euh, li may wax chaque jour rek. Euh, gars yi dañu defe ne affaire de label lu yomb la. Mhm. man dama jàpp ne dafa métti. Mhm. parce que son mooy artiste. Mhm. artiste bu mënta am son bu baax kooku carrière am mën na yàqu. Mhm. dëgg la donc tey li nga xamante ni yéenewu ma ko sama bopp bëggalu ko sama bopp. tey du ma tey Mojo mu ngi produire ay artistes nangam ak nangam son yi lay def déedéet. te en plus de cela dama nekk ci benn label boo xamante ni dama fa signé. nekk fa di travail di job Rock Team ah? Music. donc euh, awma droit nekkaat di produire leneen tañ may produire. moo tax j'ai préféré ñu mettre lépp. mu stand by. Mhm. ñu concentré ci projet musical bi bu ñu paree nag la res. Mhm. après ñu géré ci ko mooy label. mais est-ce que jotul tamit Modio demal boppam yor propre labelam tamit ndax mi nga si eh, studio euh, complet bu tegu na le waaw li may wax mooy Modio li tax gars yi li ñu war a posé lu tax Modio produirul la ñu war a wax mais label moom am nañ ko ba pare déjà macha allah. Mhm. lu tax commencé wuñ def production. parce que man dañ may produire. waaw li may wax rek ku la yéene koy koo boot di daw rek boo daanoo rek bu la ko yéenee rek kooku wayut quoi. Mhm. donc dama nekk ci signature donte yàlla teel nañu ubbil buntu wërsëg boobu macha allah. Mhm. nit mën na rab ba pare te du am label. dëgg la donc ñu commencé suñu carrière suñu boroom jël ko teg ko suñu loxo. Mhm. dañ ko koy sante xam ne daf ñu dab ci yoon bi. mais du moom la ñuy yóotu. dëgg la kon nag bu ñu waññee rek bëgg a wu ci production bi wala musé wu teg ki label. Mhm. te am na leneen lu ñu teg bët loo xamante ni bis bu ñu jànkonteeg ay difficulté studio ak ay label rek danañu ko xañ. moo tax ñu préféré teg lépp mu seet de concentré wu ci carrière bi quoi. ginnaaw bu ñu jógee si loolu dañuy ñëw si sa projet bi nga génnee rek tim <clears throat> sa premier projet mu nekk projet bu nice si ay ñoom mbaxalu Saalum nekk ah. Mhm. ah moom mbaxalu Saalum après la mbaxalu Saalum après mais am na benn sound boo ci def euh, mhm. ànd ak. Euh, Mr Ndiol. non mooy maire boobu di def. ah euh, yee Saalum bi. Ah, Saalum bi waaw laa koy jaale waaw projet bi ñu ñëw si projet bi après projet bi yan retour nga jot. waa ay na naay suur mm, am nga si dara amoo ci dara. parce que dama doon wax ma ne sama projet dafa am ay ay ay ay ay principe objectif yu ma visé. Mhm. loolu su ko atteindre rek baaxul. mooy que dañuy wax tey ñu ne Galsen Awards mhm. ku am projet war nañ ko fa nattee Sénégal loolu lañ tollook jamono ji dëgg la donc ma ne man kon pourquoi pas man su ma génnee projet mu dem ñu natti ko fa mhm. yàlla def na natt yi nañ ko fa mhm. kon donc am naa ci résultat bu positif donc li ma ci doon séntu am naa ci sax lu ëpp suma njort parce que nit génne na projet kenn du ko xam wala nit génne na projet projet bi du bouger centimètre. Mhm, yàlla def ñu def benn projet génne ko. Mhm. suñ borom tegal ñu ci loxo ci côté boobu noonu. Mhm. kon donc li ñu ci doon ut bu doon cent la bu yeboo ma ne am nañ quatre-vingt-quinze yi. alhamdulilah quoi. kon loolu sant yàlla la daal. sant yàlla.